ngi ci yoonu dëgg parce que dama contre président gis dëgg ñëw wëlbati ko ànd ak nekk soldat wu Sénégal Mollah Morgun bu wëlbati ko ñëw nekk soldat wu Sénégal pare naa ànd ak moom collaborer ak moom ci dëgg ak ci bañ a tooñ ak piétiner dignité humaine. d'accord du ma du ma du ma salfaañe ak ak yelleef doomu aadama sama lépp dama koy teg dignité humaine ak respect de la vie humaine qui est sacrée. d'accord Françoise. ñun ñu liggéeyal le président de la république son excellence monsieur Macky Sall. en tout cas merci beaucoup rédaction bu Sénégal 7 ñu ngi lay jaajëfal xam naa du ñàkk sax fan yii nii donc dañu amal waxtaan bu gën a yaatu bu ko defee nga mën ci dikk ci ponk yi nii yëpp ak sénégalais yi en tout cas merci beaucoup fii moom sa kër la comme ni nga ko waxee Sénégal 7 sa kër la jërëjëf Françoise Hélène Gaye merci merci beaucoup alors euh, ba léegi donc ñu wéyal waxtaan bi bu fekkee rek amaat nañu aussi euh, beneen intervenant comme tey affaire bi ñoo ci tombé donc voilà ñu bees dañu ko soppi sax édition spéciale ngir waxtaanee li nga xamante ni moom mooy cas bi gën a bees rapidement ma jël réaction aussi bu Adji Mass bi nga xamante ni je peux dire que ni euh, yow sénégalais lambda bi sax wala sénégalais bi nekk ba Kilimanjaro sax mën nga ko waxal parce que da ngay dugg fu nekk ci dëkk bi donc xam naa ne le cas bi bi ngay ñëw ñàkkul nga ci dëkk bi ñu ciy wax aussi ci sortie bu Mollah moo gën ak li nga xamante ni jot na koy yëkkati donc actuellement loolu mooy cas bu bees donc <laughs> voilà. ah en tout cas dans na daal dans na moom dans na dans na très bien dans na. Mhm. kenn mu lu gis lu mel nii waaye comme moom mi osé taxaw eh, nee gis na lu nga xamante ne tere na ko nelaw. Mhm. te mag moom nee ko la yàq ay nelawam du doonul la tuuti. Mhm. nan ko déglu <laughs> mooy loolu buñ ko dégloo de toute façon daal li ma mën a wax mooy que alerte toujours montage moom mi fi nit ñi la xool bëgg la bañ gratuit. taxaw bur yàq la te it tamit euh, benn affaire mi ngi ci à tout moment mën nañu changer parce que toog di xeex ak kenn ki ba mu neex la ëlbatikuwaat defee neneen c'est un peu grave ëlbatikuwaat ci biir waxu euh, femme bi tamit ni mu doon waxee man it benn instant yi tamit xaw na ma convaincre ci benn instant parce que nee na nekkul woon Sénégal dafa nekk fi nga xamante moo di Amérique mhm. bi mu fa nekkee nee na à travers les réseaux sociaux rek lay lay taxaw di dégg naan président Macky Sall def na fi lu baax def fi lu baax nangam ak nangam mu ñëw gis xam ni ñoom li ñu doon wax yépp c'est des fausses informations xam ni infrastructure mu ci ak lépp ba pare yi tamit nee na moom faralul ma Samba faral ma Demba moo tax gis nga dëgg mhm. boo ci nekkee bul ragal mhm. parce que li la koy wan dëgg mooy li njëkk moo ko xam liy mujj mhm. Ousmane Sonko nag moom benn affaire moom xam naa ko mooy que ni sing nañ ko te il faut que fi nekk nii nee naa ko euh, xale yi mu jéem leen a dalal moom rek moom moo leen mën a dalal parce que nii mu continuer nii nii nii colère bi ne ci biir dëkk bi c'est très dangereux nit ñi dangay toog sax waaye xam nga ne nit ñi amuñu esprit tranquille kenn tranquille latul mhm. nax li nga xamante ni fi mu nekk nii tey boo xoolee euh, à un à l'Europe am na ñoo xamante ne sax génn nañu mhm. xam nga waa France xam nga bu France ñu génn ñëpp génn ko xam ni kon waa Sénégal du des ginnaaw mhm. moo tax man damaat ba léegi man vraiment dama procès bi daal la ñu bëggul nan bëggul euh, ñoom ñoom waa Pastef waaw waa Pastef xam nga boobu ba léegi doy na waar te tamit wax dëgg fa neex yàlla Mollah daal xaw ma Mollah xaw ma Mollah mais Mollah moom tamit Mollah fi mu yëngal na mbir yi jaxase na réew mi de ah. yëngal na réew mi de en tout cas man de man man moom jusqu'à preuve du contraire man man man man man gëmuma ni dina génne aucune sax nañ ko def nag waaye Tunkara Tunkara léegi bi ñu ko déggee sans que aussi gis naa Ousmane Ba donc waa Pastef aussi ñu ngay génn di def ay live aussi ñoom tamit di joxe li nga xamante ne mooy seen xalaat ak nu ñu jàngatee sortie bu moo moo laa moo gën mais ñoom ñëpp seen discours ça reste le même. ba pare li ci gën a jaaxal. boo xoolee ci toile bi ñenn ñi doon taxaw di ànd ak Sonko yëpp ñu ngi mel ni ko retourné wu seetlu li ma la wax nag du ma préciser ay tur du seetlu li ma la wax xam nag pour pour lan ñu ko doo xam cause yi tax ñu def ko mais xoolal boo xoolee majeure partie bi nga xamante ni ñoo nekkoon à l'étranger taxaw di wax di n'importe quoi président de la république euh, président de la république mhm. taxaw di dem parti opposition di ko défendre ñu ci bari ñi ngi rocceeku lan moo tax loolu moo loolu war a nekk question bi nga xamante ni moom la ñëpp di posé wu instant yi mhm. ku ci mel ni yenn ñu ci bari seen conviction ci Ousmane Sonko point d'interrogation wala parti au pouvoir bi waaw lan moo xew lan moo xew parce sànq Tunkara moo ngi koy wax mu ngi ni <laughs> ñaari mbir mën na nekk soit menace nit ki ñu menacé ko ba far mu ragal daal di changer de position wala corruption maanaam mbiru xaalis ak mbiru àdduna ah, ba tax aussi tamit nga changer position wa ilaa troisième bi nga xamante ne en tout cas bu amee mooy lu ñu gënal ñun ñëpp muy la vérité mhm. dëgg te yàlla tax mhm. donc ñetti mbir yooyu en tout nekk na loo xamante ne war bu ci nekk rek dina joxe ci mhm. li nga xamante moom mooy sa xalaat ci cas bu bees ci euh, Sénégal 7 dinaa dikk ak yéen léegi-léegi ci euh, commentaires yi internautes yi képp koo xamante rek yaa ngi seetaan bindal li nga xamante en tout moom nga xalaat ak moom nga gisee li nga xamante moom mooy sortie bu de Ousmane Tunkara depuis États-Unis ki nga xamante ni mooy Françoise Hélène Gaye moom tamit léegi-léegi dégg nañu ko tamit au téléphone ñoom ñaar ku ci nekk joxe na sam opinion donc loolu sax dafay indi équilibre mhm. kële ni mu waxee Pastef la bokk ci Ousmane Sonko Françoise Hélène Gaye ci parti au pouvoir donc pour wane équilibre bu ko defee nit ñi dañuy ubbi kàddu gi ku ci nekk aussi ñi ngay déggee ku ci nekk ni muy waxee nga am noo ko jàngatee yaa ngi mhm. waaw parce que xam nga tey jii moom nee la fi nekk nii fi situation actuelle bi toll mhm. parce que dégg nga Tunkara ni mu waxee Tunkara nee nañu bàyyi d'ici demain incha allah ay mhm. dinañ xam ni moo amul benn preuve par rapport ak tey ni mu taxawee tourner le dos carrément hmm. ni moom liñ ko wan dafa yóbbu fitam ne Ousmane Sonko violé wul waaye li mu gis donc li mu gis waaye boobu comme moom moo gis hmm. te xanaa mu dina indi Sénégalais yi preuve li mu gis lu concret lu concret dañ ko bàyyi rek comme euh, Ousmane Tounkara ni mu ko waxee ne ne d'ici demain hmm. on verra bien que Mollah li mu wax gisul dara donc bu sobaa incha allah dinañ xam ba xam moo laa gis na wala moo laa gisul. donc ce sera la guerre des preuves. ma yor li nga yor wala ma yorul li nga yor. <laughs> c'est la guerre des preuves ku yor daal euh, na nga génne li nga xamante ni moom nga yor bu ko defee ñun sénégalais dañu sonn. dañu euh, xam li nga xamante ni moom moo nekk ci euh, mbir mi la ba ñu mën koo xam Adjimas. Hmm. dama la namoon dama bëggoon ñu waxtaanee yu bari mais. ah da nga yéex a ñëw ba fi mu toll nii on signale que ni cinq minutes moom dese. dama yéex a ñëw parce que embouteillage beeg yooyu xam nga loolu rek ak sama staff bi nekk à travers di Sénégal. kii bay di sept heures ba dama ray émission faaw ñu ñëw ñu toog gën ma refond refond coré xam nga. commencé te gën ma taxaw. ay gàcc ay poids ma xam ni may waxee xam ni may duggee xam ni may. waay waay réew fi jaww dem benn Ah, ah. semaine bi yaa jëloon bës bi mais fi mu toll nii moom moo laa daaj. <laughs> non moo moom. moo laa fi mu toll nii yëkkati na la fi mu nii. non non man kay bëggatuma bës toog noonu doy na sëkk bay rek ba tuur joxe na sëkk. <laughs> Narkalla malheureusement a neuf minutes donc Kaaw Bees fii koy yamale tey ci li nga xamante ni loolu lañ doon waxtaanee donc ñu daal di tàggatoo rek mais je pense que ne alerte yeeg message yi moom c'est très important il faut encore une fois aussi ñu taxaw ci. Ah, donc Adji lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax aussi par rapport ak message bi nga xamante ni message de paix parce que voilà tey xëy na yéen fi toogal Sénégal yu ci bari surtout mm-hmm. yaay euh, ñii tiit ak ñi nga xamante ni bëgg nañ dal am parce que coow li bari na. dal am comme niñ ko waxee woon rek kilifa yi comme niñ ko waxee woon ñu ne dañoo war a daje fu ci mel ni kin fàtt bu ko defee ñu jéem a toog moo xam kenn ku ci nekk tarixa yi mm-hmm. ku ci nekk sa porte parole ñu jéem a daje jéem a ci dëkk bi jàmm ak lu mu ci mënti di doon mhm. parce que dëkk bi jaxasoo na mhm. dëkk bi lëj na dëkk bi sambaraana <coughs> dëkk bi jaxasoo na doo xamati tey dootoo xamati nit ñi première position mhm. deuxième position bi mooy que ni affaire politique bii nee naa ko jël na benn parti bu large boo xamante ni dafay mel ni lépp lépp lépp lépp lépp politique xamal ne artistes yi sax <laughs> mooy loolu c'est très grave ñu ngi wax ci affaire baara mundi bi li ñu war a man kaa boobu laa fi indi ku ci nekk kaa bi waaye daal de toute façon mooy que ni il paraît que il paraît. Uh-huh. wóoruma. këni <laughs> précise bien. ah waale dafa mel ni dem na fële Vogue. moom dem na baaraamu ni je sais pas këni annulé leen ñoo ñoom ñaar ñëpp un des deux. je précise bien encore. loolu moom bëgg naa semaine bii nii. xam nga yow xam nga yow tu es bien placé pour am ci ay informations. waaw loolu moom je suis très bien placé parce que damay dem ba suba teel. voilà dinañ ci waxtaan je ne cache pas dinañ ci waxtaanaat bu baax a baax. ci cas boobu la diggante Pape Diouf ak euh, Wally Seck. may jaajëfal ki nga xam ne nag moo di Sali Babel Sali Thiam yaay Wally. Sali Thiam ndeysaan waaw nit ku yàlla baaxal. chéri mm-hmm. maman Mamori Madoum Ndaam baaxkat baa ngi noonu waaye di jaajëfal ki nga xamante ni nag mooy sama mag yi nekk Italie bëgg ma fonk ma di jaajëfal soppe yi mbokk ak sama staff yi nekk ci àdduna bi yëpp comme waa Italie dugg na ci staff bi waa waa Amérique yi dugg damay juum <laughs> eh, euh, nuyu bu baax a baax bu baax a baax a baax bu baax ñoom bébé Diaw ñoom waa Noor Foire yi bégg naa ñëpp staff bi daal moo limee damay juum waaye daal boo bëggee dégg-dëgg cinq continents du monde aujourd'hui moom fu ci nekk am naa fi staff. waaw macha allah en attendant ba jeudi ti dinañ namati ko. <laughs> kontaan naa Adji donc cas <laughs> bu bees mu ngi noonu équipe bi la donc rendez-vous tous les jeudis tous les samedis 21 h mm. Sénégal 7 yaay booy. Mm. Euh, moom tarkal cas bi bu bees comme ni ñu koy waxee ñun ñoo ciy dal ñun ñoo ci dal daa commencé nañ bu yàgg. ah production ah, xam nga ak eh, ah, nañ bu yàgg sax. boobu maa ngi ci embouteillage bi yaa ngi ci embouteillage bi. <laughs> boobu ba. yaa béy ah, waa xanaa di jox dig daje sénégalais yëpp ba jeudi incha allah ci kàttanu yàlla di jaajëfal ñëpp nag. Mm-hmm. comme ni ko Adji Mass waxee rek nit ku nekk. dafay baax ngay am say conseil a communication nit dafay baax nga am staff non xam nga dëkk bi dafa nekk dëkk bi neexul dëkk ma man aw mbaw sama conseil en communication la waaye sama la Marème Guindo mu leer One Vision waaw One Vision ah Marème xam naa ko waaw kay Marème Guindo One Vision kooku mooy sama manager aw mbaw nag sama conseil en communication fi dama koy jaral mu bi di xool da maa ngi def erreur wa def waaye aji siis sama xarit xamante ne nii lépp lu ma mës a def ci àdduna rek nee na ma Collé waxal li bul wax li bul wax laa hmm. Tulay Baabu en fait bari ñoo xamante ne nii ak ñi nga xam ne nekkuñu Sénégal chaque jour bu ñu dara seen fit day tëf tëf sama benn doom jékki-jékki nee ba ci saase mi doon ragal ndeysaan nee na bi am egg ne nii nee na ma yaay yéen ku leen laal daf ñuy laal dëgg la ndeysaan waa Ouest Foire ñëpp di di di di di nuyu aji maas macha allah fa tubarfakàlla amul kenn koo xam xam naa ko rek te naqarluwu ko ba woote ni vraiment nuyu ma aji maas waxal ma ko lii waxal ma ko laa di nuyu waa Norvège sama sama sama mag daado mhm. nekk fa nekk fa la ca Norvège di Gambien bu mag a mag a mag macha allah Aïcha Canada sama rakk jooju nga xamante ni moom tam kenn du man kenn du moom ci man nuyu naa ñëpp bàyyi ma kenn bu ma limee damay juum <laughs> yàlla ñoo booleeg sénégalais yi ñu bëgguñu torop donc kon du dellu wax alhamdulilah te ñaan yàlla moo laa soor donne ñu les daal xam naa ni moo animé li nga xamante ni moo animé toile bi fii ci euh, Sénégal allah c'était votre cas bu tey euh, ci samedi bi la merci beaucoup à la régie merci à toute l'équipe technique merci beaucoup à Junior ci production bi ak ñi nga xamante nekk fii ci kër gi lépp di fi amal liggéey bu am solo ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen gërëm di leen remercier yéen tamit ami internet au Sénégal 7 joxante dig daje incha allah jeudi à partir de 21 heures 30 minutes ñu fanaan ak jàmm